taaruñu ci tey pexe amul même ñiy defar vaccin yi amuñu pexe parce que virus bi nekk ci bi rey nit ñi muy tawat ji la ñuy defar defar ba am nañu ko adopté ci sa yaram sa yaram dundu tawat jooju en attendant say anticorps mën ko adopté bu bula la tawat ji dalee fekk mu am force bu mën a xeexee ak moom kon maîtriser wuñu ko yàlla dong moo ko maîtriser yàlla moomu nag kaay leen dajaloo ñu sant yàlla ñaanalante kaay leen dajaloo def ay bernde xéewlu da ngay am courage gëm yàlla walan yuwaaxiru allahu nafsan iza jaa ajaluha bis bi nga war a deewee doo ko paase man courage sëñ Muntaxa ni ma ko waxee woon daaw laa koy waxaat dama koy saluer parce que gars yi ak seen bumbaay mi seen seen seen seen seen naxaate international seen naxaate mondial yi nii te tax kenn bàyyi sa pas-pas mhm. yàlla leen ëpp doole fop te màggalu Tuubaa du bumbaay bu ñu accepté euro am Copa America am Tokyo yooyu Tokyo actuellement yooyu di am daañu accepté màggal am. parce que li daje Tokyo moo ëpp li daje Touba. li daje Copa America boo seetee du début à la fin premier match ba final nga boole ko premier match ba finalu euh, Copa America ak euh, euro 2020 nombre bu toll noonu ñooy ñëw Touba kon bu leen ñeemanee supporter bu ñu fontoo. dañuy dundal suñu diine. wax na ko màggal gi du euh, xumbaay du mbumbaay économiquement la muy pesé fii ci réewum Sénégal loolu moom ëpp naa ba Euh, euh, daaw bi ñu tëjee def euh, ay couvre-feu ak yu ni mel sur le plan économique dafa amoon jafe-jafe yoo xam ni daka indi woon ci réewum Sénégal mais xam nga lan moo mayoon un souffle nouveau ci wàllu économie ci Sénégal di saluer ku ci mel ni docteur Khadim Bamba Diagne nga xam ni def na ci ay études yu bari Moubarak loo et cetera mm-hmm. on a vu que bi ñu defay màggal yi dañoo mayaat économie ci réewum Sénégal beneen souffle bu bees. ci jamono jooju tout simplement parce que dañoo jóge woon ci tëj couvre-feu ak yu ni mel économie bu gàllankooru ñu dindi ko dem ci màggal économie màggal bi dellu siwaat indiwaat benn suuf nouveau ba ñu neewoon sax ni réew mi dafa mel ne lu taxaw màggal gi ñëw Euh, réew mi di commencé di doxaat donc sur le plan économique dafa am lu bari loo xamee ni màggal da kay da koy euh, da koy indi ci wàllu koom. muy mm-hmm. petit commerce yi nga xamee ni ñu ngi ñu ngi ci muy wàllu chauffeur yi muy ñiy jaay matelas daanaka amul secteur boo xamee ni du ci gis boppam ci jamonoy màggal amul. kiy mm-hmm. jaay ba ci kiy jaay ndox da ciy gis boppam kay jaay glace kay jaay gerte kay jaay matelas kay jaay lu mu mën a doon dañ ciy gis seen bopp rawatina ñi nga xam ne nag euh, tey ci wàllug diine. am na loo xamee ni tamit ñun euh, ñii di suñuy kilifa diine ñun ay royukaay lañu ci ñoom ci ci ci ñun muy manqué wax sànq muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy Kaolack muy foo mën a dem ay royukaay lañu ci ñun te ñooñu nga xamee ni nag am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci wàllu mbas mi sëñ mhm. Mountakha moo njëkk a yëkkati xaalis joxe ko ci mbas mi bi mbas mi doog a tàmbali moom moo njëkkati yëkkati deux cent millions dugal ko ci ak yeneen i jumtuwaay yoo xam ne dugal na ko ci ça veut dire que kooku gëm na ni mbir mi am na mais la mu ci war a def ma ngi koy def la mu war a def mooy lan ma ngay takk masque chaque jour nit ñi di ko gis sëñ Babacar Sy Mansour di takk masque chaque jour mhm. nit ñi di ko gis kilifa diine yëpp di def la même chose donc lan moo des nguur gi moo leen di jàppale ci communication ci sensibilisation ci organisation ni ko gouverneur bu nga Diourbel waxee euh, fexe soñu nit ñi nañu takk seen i masque dañuy def mesure barrière et cetera mais bi ñu màggalee daaw bi biñ ci génnee ah yaakaar yaakaaruma ni yokk woon na ci wàllu mbas mi de ci quinze jours yi ñu doon wax naa ni mooy période bi nga xam ni bu kiiyee dañ euh, période d'incubation je pense pas yokk woon na de ci chiffre yi ñu mm. gisoon au contraire dafa delloon ginnaaw donc ni ko Mansour waxee également diine la te diine moom moom euh, passe-passe la boo xam ne nit ki muy mbas muy lu mu mën a doon mënoo ko dindi ci ndik ndik nga xam ne bëgg na def loolu. donc dañu mm-hmm. leen jàppale surtout ci wàllu sensibilisation ak dafa am benn jeu boo xam ne ci côté économique. ñoom ñun occidentaux yi ñuy toppandoo. ñii dañuy def wikkolo wala ñii dañuy def lii cest dire que ñoom tawat ji daf leen permettre ñu ñu lancer waat yeneen entreprise parce que même boo xoolee tu Eiffel fi mu nekk nii ubbi gi ñu ko ubbiwaat ñaata entreprise ñoo fa gagné ay marché di liggéey. non seulement dañuy relance waa seen entreprise mais dañu permettre yeneen yeneen entreprise ñu judduwaat par contre ñun fii Sénégal suñu entreprise dañuy gën a nërmeelu gis nga dox diir koo tollool mbagg dox koo yamal aw aw jéego mm. c'est-à-dire que ñoom fa ñuy xoole ñun du ñu fa xoole dañuy xoole ci wàllu pas-pas mais en même temps ñuy moytuwaale tawat ji mais di xoolaale suñu wàllu pas-pas amoon na fi fan fanweer at ak nangam la fi dund mag ñi dañu demoon ba adopté wu ak peste boobu noonu mais ñaanuñu yàlla am dund dund ak tawat ji at yooyu noonu. mais bu ñu ñun ñun ñun ñun su ñu koom-koom suñu am-am moo matewul tëjee. bàyyi na kuy wax naan nañ def ni nañ def ni te billaay bu toogee fukki fan liggéeyam dootu joxe dem këram dañ jéem leen lu ñu man loolu am na ayca ñu àddu jëmale fii ci diwaanu Ndakaaru mooy épicentre euh, jàngoro